salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di leen jëfal bu baax a baax di leen fàttali ñu ngi fii ci arène national ki ñu fi woo di Big Pato Events combat bu mag bi dox ci diggante Big Pato numéro 2 ak Pape Diouf mu nekk làmb joo xamante ne vraiment àdduna bi ñu ci baree bare bari ñu ngi bëgg a xam làmb ji fan lay mujj kii nag bu ngeen ko gisee nga xamante ni mu ngi jóge ba Hollande muy Big Pato numéro 2 ñëw fas yéene laale ki nga xamante ni mooy Pape Diouf muy doomu Sénégal lépp ngir ñuy jaay li nga xamante ne mooy suñu làmb ji di suñu culture di suñu aada di suñu cosaan moo waral tey ñu ñëw fii ci arène nationale ñaari mbër yi bërki démb gis ngeen bi ñu jëli jee bi Pato numéro de fële ci aéroport gis ngeen Pape Diouf teeru na ko moom it teral ko ndax Sénégal réewu teraanga la ñun ñëpp benn lañ yaakaar naa ni nag damay njëkkee ci ki nga xamante ni mooy Pape Diouf su ma juumul bi mooy premier combat boo xamante ni mu ngi ci bëre koo xamante ne nasaraan la ñu jaajëfal ko bu baax bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi Pape maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar gis nga sa adversaire de. ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi. Hmm. maa ngi gërëm samay ñaari waajur. di leen ñaar yàlla bàyyi leen fi bañ fekk sama njariñ. Hmm. di nuyu Aziz di nuyu ñu fi teew yëpp sit yëpp. Hmm. di nuyu big mi tëgg combat bi. di nuyu sama ménagère Bourkhane. waaw. noo euh, bi poto numéro 2. waaw adversaire bi kontaan ci li mu def dama ko siy remercier hmm. waaw nekk tubaab di suivre lamb si internet bi ba gis ko ñëw ne da ngaa bëgg a découvrir sa premier combat nga ñëw ñu jox la grand combat. Hmm. kon loolu contentement rek laa ciy am di ko wax na dal jàmm rek hmm. waaw. gis nga MMA bi fan yi tubaab bi ñu ngi jàpp nit ñu ñuul yi wala boog ñu ngi jàpp seen seen classe gi ah. yi amuñu ci dara gis nga bombardier gis nga Reug Reug gis nga Siteu ñoom ñëpp bariwuñu sens ci li nga xamante ne mooy MMA kii ñëw fekk si la ci li nga xamante ni moom nga gën a mënee muy làmb lan la ñuy séntu ci moom waaw incha allah bu jour baa dama koy jàpp daan ko si kàttanu yàlla. waaw parce que ñun làmm suñu culture la suñu cosaan la ñun ñoo ko moom jéggaane wuñ ko. kon ku fi ñëw nag bëgg bëgg bëgg a ut si wala nga bëgg ki da ngay xaar rek. parce que lu làmb ñun ñoo ko moom. suñu deret la bokk te ba pare man doomu mbër laa. damaa bokk ci làmb. voilà. am na solo ñu ñëw ci euh, sama xarit bi <laughs> maa ngi maa ngi koy nuyu baax. my friend. Uh, mm. Salam alaikum, Senegal. Thank you for your hospitality. Thank you for your, um, for uh, your warm welcome. nee na ni ngeen ko ganalee kontaan na si jërëjëf mu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp. bi mu gisee adversaire bi Pape Diouf moom lan la. when you saw the your um, adversaire what, what was your thought? I thought there was uh, standing there a great champion, uh, a big guy who is obviously a strong physique. Yeah. and um, nee na ko gisee dafa xalaat ne que ponk nit la bu am euh, physique bu yaatu daal bu bu rëy xamu ne koy waxee ci olof lay waaw loolu la njëkk gis mhm. exactly yeah the last few days have been so great for me the hospitality of the country the hospitality of the people and uh, when I look over there I see a symbol of the Senegalese power and I'm honored to be here fan yi passé nii li mu gis lépp ni ko ganalee xam baaxaayu sénégalais yi ni ñu koy kiiwee ak tout bu xoolee fii rek xool danaan like dafa dafa kontaan daal ci ci gàtt. la gisee démb barki démb gis nañ ko bi senegal amee ndam mu génn ànd ak pato ci oto bi. di jible ko um, uh, day before yesterday when they saw you like when uh, Senegal they won, won the champions like you were so happy come out you know celebrated with the Senegalese how were you feeling. I was so excited to be here when that happened. Uh, of course, I support Senegal in the Africa Cup, and for me to be here and uh, to experience the craziness, the excitement, and the passion is unbelievable, unbelievable. na moom Sénégal lay la doon supporter ci Coupe d'Afrique bi te bi mu gisee like nit yi ñu excité woo woon xam nga daw fii yuuxu fii pour moom mënu ko sax gëm ko lan lañ koy xaar ci diggante kii parce que kii ponkal la te daa mën a dóor daa mën a bëri. what they supposed to be very normal with you and the fight with uh, Pape Diouf how you supposed to be doing. come say that again. Hmm? say that again. du yomb. what were you asking? like what, what they supposed to be expecting. Oh, for from me you, from the um, fight. For, for me for me that is uh, I'm new to lutte avec frappe. Mm. Uh, the hombre. It's not going to be easy. I'm going to fight. I'm going to work. xam nga ne du yomb moos du yomb de. wóolu doof. wóolu doof. waaw man ma la maan. yow su ma la jàppee. Pape Diouf. naam na mbrik man na mbrik. incha allah su ma la jàppee incha allah su ma la jàppee di nga xam ne yàpp du géej de. le guerrier le guerrier Pape Diouf le guerrier man na mbrik di hombre. dama ko bëgg a xamal ne ko man sant caam rek indiwuma ci mbaar mi. Ah. waaw sant Thiam. Hmm. ma ci mbaar bi damaa mën ileer ba pare soog a ñëw. It's not going to be easy. I hmm. know that Ludovic Fab is new for me, day yomb nee ko day facile far force maa ko gën a nekk xale maa ko gën a liggéey gis nga may taxaw di ñàq. du yomb yomb de. day yomb nee ko day gën a neex sax <laughs> su bëggee lu yomb rek da teel a ñëw daanu dem ñibbi benn yoon. Ah. dinaa eh, la dinaa la. dinaa la duma. dinaa la duma. dinaa la duma. Eh, eh, waaw léegi nee ko bu ko neexee ñu xeex ñun ñaar cinq minutes. corps à soo ko jàppante contact bëree. voilà he say if you want five quest que c'est? Cinq minutes? I only need four minutes. Oh, la soxla man bëgguma quatre minutes man cinq minutes laa bëgg ñu xeex. non man cinq minutes laa waaw waaw man cinq minutes ñu xeex incha allah soog a bëri. mais naam rek. naam gis ngeen ko mbokk yi mu nekk loo xamante ni vraiment Big Pato lu ne moo ñu dugal. lu ne lu ne lu ne loo xalaat rek Big Pato moo ñu dugal waaye bii moom. di ñu dugal ci rapide sàmbalaw bi te duñu wàcc fu ñu neex bi poto kaay kaay kaay su ko defee. <laughs> big man maa ngi jooy ndax yéen. waaj moom du moom. moom waa avant tout damay remercier assistance bi di nuy ñëpp di sant yàlla bu baax ci sama jur seen gërëm sama ñaari waajur. di gërëm sama fils sax laay wax Pape Diouf. Mm. sama xarit Big Pato number two di wax ni am naa mbégte pour. recevoir fii gars yi si CNG bi ñëw pour dans euh, le but de régulariser suñu combat. Mm. Ah, damaa ree bay a dee parce que tubaab bii ma gis ni kii pare na de nee na waaye du yomb de Pape. Mm. tubaab neen du yomb de kon Sénégal yéen a ko dégg. non violence ñu woote mais kii daa mel ni violence a ko a jóg kii moom mm. xam naa du yomb. I just want to explain you I'm very happy to be here with you to make the promotion of the events because we are here for the non-violent but for the fight it not will be easy. Mm. That's what you what yomb. xam naa ni yaa ko man you you are so you you is better than Pape Diouf. ah bon I know that's going to be an enormous challenge. nee na salante la ci moom. tontu ko nee ko du yomb. yombo. yombo mi nam break. man man nam break. nam break. liggéey rek. liggéey rek Pape Diouf liggéey rek. man man la man. yow la moom. nee na maa la man. waaw yéen a gis li ñu bëggoon tey mooy. indi lu bees parce que xam nga Sénégal yi namoon nañ lii mooy tubaab bu ñëw war a bëree. Mhm. je pense que depuis xwaan ba léegi gisaatuñ ko. Mhm. lii fii ñu nekk nii arène nationale c'est symbolique mooy suñu mhm. temple lañ nekk ñoo ko moom fi ñu gane wuñ ko suñu effort national la. ñun ñoo war a liggéey daf ñu mën koo jaay parce que kii bitim réew la toog di ñu gis. ko xam Pays-Bas xam ñoom Van Persie ñoom Nistelrooy ay ñoom Kluivert ñoom Seedorf mooy seen dëkk football jaaxalu leen ñoo ñu ko dàq. mais tey bu ñu leen indee fii suñu làmb. pour man honneur pour le Sénégal et la nation toute entière war a ñëw soutenir Big Pato event bi ci non violence day bi te li ñuy def mooy remercier d' abord lions yi. président mm. parce que non violence dama ko woote rek coupe bi ñëw kon lii sa sama initiative la kon coupe bi kon projet li wax rek mooy l'union fait la force c' dans la paix qu'on peut construire un pays qu'on peut mm. développer un pays. Mm. esprit boobu nañ koy doxee mooy soldat bi et je félicite encore le président la république ci message mooy ga ngay di gañe mu invité ñëpp woo ministre de l'intérieur mu invité ñëpp loolu lañ soxla tey ah mooy booloo bennoo bokk yaakaar wala booloo yeewi askan wi nu ngeen ko tuddee baax na lépp ci askan wi la jëm mbëru askan wi promoteur askan wi ñëw na tey Pape Diouf ma koy féliciter encore une fois xale la kii dafa war a bëre chaque dimanche daa war di bëre kii mbëri nañ ko fiy teggi mais kii warul sax bëre tubaab bi non kii tubaab bi bu ci génnee soo gisee ma jël ko uh-huh. dama lay soo gisee ma jël tubaab bi maanaam ñàkk lu ma bëree moo tax te yàlla xam ne chaque année chaque saison bu ubbee licence simple laay njëkk a taf dem si àll bi compétir ji du ma xaar li bëri dóor yàlla xam na loolu chaque année laajal màgget loolu mun na ma ko seedee man damaa toll si ba parce que bëri rek laa xam man xaalisu làmb lañ ma ngéntee te damaa bëgg bëri bokk ci làmb lépp lu mbër mën mun naa ko war a Serigne Saliou Serigne Ndiaye mooy sama papa te gëm gëm naa ne làmb ji man maa ci dàq bëri ma loolu laa gëm làmb ji gëm naa nag maa ci dàq bëri dañ naan ko amul yaay namp maam loolu waral ma jël tubaab bii yàlla xam na loolu damay def témoignage moom ma combat bi jëlu ko pour xaalis ah dañuy waxante ngi nii di ma dégg papa mi ngi may dégg ak Balla Diouf li mu mujjee bëre xam nañ ko lu bëri la bëre. Hmm. mais combat bi dañ ma per damaa toog rek bëgg a fo. Hmm. xaalis intéressé ma loo joxe baax na. loolu dama ko ciy saluer di ko ci remercier ci projet bi. Hmm. di wax ni li wax rek doomu mbër la xaalis laa am nga génn xam nga boo nee Fass ñu ne maam góor gi Ndiaye ne ah. ne Doudou Bakar Sarr ñoom Moustapha Gueye Mbaye Gueye nga ñu ñooñu ngénte la tey kii xam nga tey bu ñëwee dugg si takk sëriñ indiwaat cosaan mhm. loolu lamb làmb soxla di gërëm aussi ménager am père Bourkhane papaam sëriñ Ndiaye ak ñoom Balla Diouf ñu ko yoran ah. mhm. di wax ne loolu lañ soxla mooy làmb lañ soxla cosaan lañ soxla culture lañ soxla mais nag li ci gën a am solo mooy tey étranger bi moo ñëw di bëre tey bëggatuñ gis mbër mu jóge fii di bàyyi Sénégal di dem MMA ji mhm. ñun ni ñu yor nañ ko valoriser tey tey ñun maa ngi invité responsable écurie mooy waa ARELS di woo amateur yi di woo mbër yëpp nag maa ngi invité ñëpp

te loolu ñoom Sadio Mané def loolu na ko gars yi jàngal ñu ko mooy mentalité mm. bu baax dem nañ ñàkk ko ñu ñëw rayante waat découragé wuñ départ bi mu metti si ñoom mm. ay ay Covid bi ñu téye suñu yenn jours yi mm. loolu ay affaire la rek pour jéem ñoo découragé mais ñu gëm ni yàgg-yàgg dañ koy jël comme ni nga ko xoolal li ñu leen santoon méttiwul woon mooy dem jëli ko bi indil ko tey def nañ ko loolu laay sant sport bi. jërëjëf ñu ñu dugal sponsor bi. ki nga xamante ni moom moo jàppale. Big Pato ànd ak moom. muy ndox bu sell bi di Osinja. yegg si nii. yegg si nii soxna si waaw dégg nga na ministre bi ak équipe nationale invité nañu doon Aliou Cissé particulièrement maa ngi lay invité nga ndox bi Sindia. ndeysaan ndox mi Sindia. noo def. maa ngi fi tudd Fatima. di voilà donc làmb c'est-à-dire suñu culture la mm-hmm. te ñun lu suñu culture na rek rek ñun ñu ngi ci mm-hmm. donc ki def kii moom Sindia aussi doomu réew mi la doomu mm-hmm. Sénégal Soye Touré nekk fii ci Sindia jël turu Sindia aussi jox ko turu ndox bi donc looloo tax ñu koy représenté du gunge aussi suñu lutteurs yi Pape juuf voilà ak Big Pato 2 pour pour voilà le 12 xam nga gën a mën a wane ndox bi sellaayu ndox bi xam ne mbëri ñoom si boppam ñoom ndox bi la ñuy utiliser actuellement gis nga feen état de forme ak li ñu fi wane léegi donc jawarte boobu yëpp Aussi Ndia ko waral parce que tout au long de leurs entraînements et tout Aussi Ndia moo leen di gunge yeneen yi dama koy naan muy yii di xeeñ eau donc loolu yëpp doo ko gis ci ndox bi ndox bi dafa dafa léger tellement. Mm-hmm. donc ñi fi nekk goûté nañ ko donc xam nañ qualité ndox bi ndox bi dafa léger bëri na ay ferñeent. Mm-hmm. donc xale yi mag yi jeunes yi tout le monde mën nañ ko utiliser. il mm-hmm. suffit que benn yoon nga naan ko rek donc doo xoolati beneen ndox. Eh, ndox mi neex na yow. neex na Sindia technique <laughs> <laughs> neex na torop. donc depuis mu nekk fii au Sindia moo koy gunge jox nañ ko ndox yi depuis boobu laalul beneen ndox moom rek depuis aéroport ba fii au Sindia rek lay naan. Mm-hmm. voilà que suñu autre champion bi di Pape Diouf. Mm-hmm. voilà <laughs> daaj na ko léegi di naan voilà donc man daal maa ngi leen di recommander donc ngeen ngeen naan au Sindia tout le monde toute la population sénégalaise pour jàppale aussi ñu doomu réew parce que suñu doomu réew moo koy defar li ñuy jéggaani du ko uti feneen voilà mu ngi ci dëkk bi am nañ ko am na qualité. donc neex na voilà te dina la jàppale ci sa wérgu yaram bu baax a baax. aussi Ndiaye pare na pour ànd ak yeneen promoteurs yi wala pour Big Pato kese la. non Big Pato moo ñu moo si lañ tàmbalee mais pare nañ pour ñeneen ak yeneen. pour sénégalais yëpp ko tax a jóg. Mm. franchement voilà. macha allah ñu ngi lay jaajëfal. ok leeral bu am solo boobu di leen jaajëfal kon xam naa ni mbokk yi noonu ngeen gisee combat bi gis ngeen xale yi nga xamante ni ñoom la Big Pato dajale xam naa dañ leen di joxe dig daje rek. waaw bo xam nga mbër na a baaxoo woote. Hmm. Pape Diouf fa mu woo ay mbokkam Dunkaan woo ay mbokkam man nag bu Dunkaan ñenn la war a woo xanaa équipe nationale bi <laughs> bu kii wootee wax ko bu kii wootee moom it mu woo ay mbokkam. waaw maa ngi woon ñëpp képp kuy sénégalais maa ngi lay woo ci combat bi. waaw di woo waa Jaxaay su gëm dëkk. Jaxaay deux dix neuf vingt et un Jaxaay gépp la cité gendarmerie. Kër Massar woo naa ñëpp. rawatina na woo sama mbokk bawal bawal yëpp hmm. waaw surtout waa Mekhay Lambaye maa ngi leen di woo hmm. waa Touba waaw waa Jilaas Jirnda fépp daal hmm. fépp Sénégal nekk rek maa lay tàllal loxo di la ñaan nga jàppale ma ci combat bi ma daan bi pato numéro 2 xam naa teral nañ ko teral bu neex na lekk na suppu kanja lekk na dama daa naan na café Touba loolu moom mooy suñu teraa ngi réew yaa sa ginaar mais nag bu bis baa si kàttanu yàlla dama koy jàpp daan ko teralaat ko rek yëkkati ko may ko ma ngi yaa waa Sénégal yëpp. ma ngi woo ma ngi woo. ya Sénégal bu yëpp. For me, it's going to be a big challenge. I need all of your support. Come here. I'm, I've, I've traveled all this way to, to fight with the best. I've traveled all this way to fight with the best and, uh, and learn the culture, learn the sport. So I need all your support. Come and visit. Mm-hmm. Yeah. muy lion yi quoi gaynde yi hmm. moom laa waroon njëkkee sax mais dama xaw a xam nga xel day fattu ay doomu aadama lañ rek mais di leen ñaanal seen victoire bii nii yàlla na leen jik hmm. waaw lii daal la réew mi bëggoon am na ko yàlla na jik Sénégal di leen félicité di leen wax xool yëpp sedd nañ hmm. waaw nañ am jàmm bu baax a baax Sénégal yàlla def fi jàmm bu baax a baax ñu dëkku jàmm lañ fii bëgguñu xamuñu loolu jàmm daal loolu jàmm jàmm ko gën waaw ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp ba le douze waaw yi tamit ñu ñëw di wax président Macky Sall Matar Ba na jënd ticket yi gars yi ñëw def ko feet bi àggale ko fii nii ngéntali incha allah stade bi fees dell cosaan dekki loolu daal lañ bëgg incha allah ñëpp ñëw ma jàpp tubaab bi incha allah daan ko di sant sama ménagère euh, Bourkhane wax dëgg fi yàlla ku baax la père Bourkhane waaw maa ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba li mu bëgg suñu borom defa moom daf may woo ma nemmee ko yaa ngi entraîné yaa ngi nii yaa ngi naata moo na a fekk ko sant di sant sama papa Serigne bu baax a baax di ko ñaanal wér ak wérle di sant sama yaay di sant waa Jaxaay gépp di sant képp kuy bawal bawal daal sant naa la gërëm naa la woo naa la le douze incha allah waaw jërëjëf waay. jërëjëf kon xanaa mbëri joxante loxo su ko joxee ñu jox. Senegal come and support. I've come all this way to to unite with your people, the government, the police, and. Uh, come here. I've, it's been great up till now, and I need your support. Come and uh, let's go Senegal. nee ne mi ngi woo Sénégalais yëpp ngeen ñëw jàppale ko ngeen ñëw jàpp ci bés bi. police euh, gouvernement bi yéen ñëpp mu ngi leen di woo pour ngeen ñëw jàpp ci parce que dafa ñëw pour bokk seen culture donc ñëw leen jàppale ñu yéen ñëpp ci violence bi. The objective of this tournament is to unify the people on non-violence day and just here to enjoy each other, enjoy the company, enjoy the sport. Let's go Senegal. nee na eh, butu eh, organisation eh, non violence day bi c'est pour kii dajale pour sénégalais yëpp ñu doon benn ñëpp nekk benn ñu am fan foo kaf ree ci jàmm nee ko ñu joxante loxo ñoom ñaar joxe dig daje ba ay ca big pato ñëwal